danga ne woon de seexu naa du nu tàggoo ci àdduna ni ke yoote nanan tàggoo ku mu tàggool te jooy nga yow jooy ñaar la jooy ngir baaxam de baa jooy ngir ga jëmmam baaxam ngee tax mu teel a juub fu moom leer na yàlla jamu jeetam de yaatuma xol ba rafet ku mu daajeel te dalay reex ba ñu rafet ndawam nga set doomi bàyyaam doomi ndey yaa te ñoo ko xaritam te seede nan sëriñ asmay nekk naa moom ci fukki at ci fu nuy xëy te fukki at nag lu roow laa fukki fan yow koko nekkal yaa di moom moomin muy yow te fukki at nag lu roow fan yow وقنع كالبيابل ومن ميام مرسيك الدسيدنا لما خمم دمك ديك نبو خمم سيخنا كن سرين أخمي دسيدنا سيخنا كن نكو باخلا سرين Seexuna kon ne ku baax la góoram baayo de seedeena Seexuna kon ne ku baax la mara seeku de seedeena Seexuna kon ne ku baax la نفى إبليس في بحر ما ينبع daleen ak jàmm ci Dieng Saala TV ñu leen di ñaan bu leen fàtte abonné te ngeen laal bi loolu mooy tax vidéo bu ndugal rek ngeen mën ko am jaa ngeen